gan gi ni ko Anna Thiaw waxee docteur Abdou Khadre Sanoko xelam màcc ci wàllu politique waaye itam euh, psychosociologue la ñu ngi lay nuyu docteur Sanoko am mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM. maa ngi di fay di nuyu aussi di gërëm seen auditeur ak seen auditrice yi leen di déglu yëpp. Mm-hmm, jërëjëf alors ñu tàmbalee ak euh, débat limitation mandat bi nga xam ne ñëwaat na ndax président mm-hmm. Macky Sall kaddu yi mu ci yëkkati barki démb jàpp nga ni loolee euh, lu laale la ak élection présidentielle bi lu ñu dëgmal wala da nga jàpp ni rek xëy na da koo wax noonu. waaw loolu pédagogie la xam nga koo xam ne ni dafa waxoon ne bëggul dégg ñuy wax waxu manda parce que moom dafa nekk si liggéey. Hmm. magum jëm su demee ba wax len li nga xam ni am na lu tax mu wax ko mooy euh, contexte bi mu nekk nii mi ngi pare xelu yenn sénégalais yi nga xam ne en tout cas man mais en tout cas xelu sénégalais yi nga xam ne ñoom jàppoon nañu. Hmm. waa ji manda mais mu soulever ko pour deux raisons benn bi mu am un peu tâté pour comme li ñuy waxee ci tubaab mu un peu saytu nan la ko nit ñi di jàppee. mais mu du nekk surprise. mu miinal ko seen bopp ba jour boo xam ne nii bëgg na ko wax mu wax ko mais man de man jàpp naa ni depuis mu gagné élection présidentielle ba mm. laa xamoon ni moom ak Alassane Ouattara ak Alpha Condé ñoom dañoo bëggaat beneen mandat parce que d'abord tubaab yi ñoom lañu jàppal tànk parce que man gëm naa ni Afrique pour la quasi totalité. Euh, am na élection yu bëri yoo xam ne nii tubaab dañ ciy seen loxo man bokk naa si ñu jàpp ni Abdoulaye Wade bu doon askan wi ak askan wi rek kenn waxatu ko mën na am parce que constitution mayoon na ko ko réalisation mayoon na ko ko mais idée wu dévaluation monarchique bi nga dégg ak yooyu yëpp parce que dafa neexatul woon ak réew yu mel ni France ak réewu bitim réew yi te Macky Sall nag wax dëgg yàlla moom digganteem dafa ratax ak gaañ yi beneen bi ci topp ñoom ci seen bopp ñoom dañ koy forcer ne ko. Hmm. pour intérêt wu sous région bi pour question géostratégique pour consolidation jàmm ji pour que problème mu Mali bi euh, ñu gën ko mën a dëgëral hmm. ak yow sa expérience waroo mën a dem rek ba pare bàyyi bàyyi nguur ji noonu. Hmm. beneen bi ci des nag mooy le fait que. Euh, soo xoolee si ni mu doxalee amul benn mbër bu mu préparer bu bokk si këram ak bu bokk si njabootam mais également aussi profité na si pour nasaxal nit ñi ba bon euh, même ci bopp opposition bi xam nga nit booy dem élection war ngaa xam ki ngay dajal. Mm-hmm. mais tey même su fekkee ne nañu Sonko mooy chef de l' opposition moom xamul kan la ko war a xëccool suy dem deux mille vingt quatre parce que Macky Sall positionné wul. Mm-hmm. mais yooyu yëpp nag moo la doon wan ni bu opposition bi amee xel bu ak xarañ bu baax ñoom war nañ xam ni débat wu troisième a bu ñu ci noppeeti nañ commencé di ko wax à partir de législative yi. Mm-hmm. ci seen ak seen i wax bu nekk. sinon bis buñ koy teg ci kaw taabal bi dina leen bett parce que conseil constitutionnel la ñuy laaj droit le droit étant une discipline interprétative maanaam hmm. droit moom mooy discipline scientifique boo xam ne nii foo ko fekk day am ñaari camp yoo xam ne dañuy wute loolu la ñuy gis bis bu ne ci tribunal avocat bi day lay fi kële lay fii suñu paree juge bi nga xam ne moom mooy àtte mu àtte fii nag juge constitutionnel wala waaye léegi juge constitutionnel waxee ni Macky am na droit au te ñoom jàppuñu ko woon seen bopp ñu def nan mm-hmm. maintenant loolu moom mooy ce que j'appelle ay paramètres yi nga xam ni c'est des paramètres objectifs mm-hmm. maanaam mën nga bëgg mën nga teg sa ndënd même na ñaar yoo xam ne ñoom buñ ci dogoo mun na benn bi moom mooy askan wi ne la waaw peut-être que samp nga sa mandat mais mm-hmm. beneen bi mooy ak loo munti gisit ñun ay woy ngëm lañ mën nga am sa intention bu la neex su ci yàlla àndee mun na sotti mais su ci àndul du sotti alors ñu wax ci législative yooyu opposition bi euh, ñu ngi ci waaj bu baax a baax euh, pouvoir bi itam désigné nañu Aminata Touré mu war a nekk tête de liste nationale kon di jàkkaarloog Ousmane Sonko. bëre euh, mhm. la boo xam ne du yomb waaye xëy na am na feneen fu yëf yi aussi mën a jouer un peu muy ci département yeeg yooyu naka nga jàpp ni daal noonu la opposition bi war taxawee ba xëy na mën génn ci élection yi ca wet ga it président Macky Sall mi ngi recruter ay maire loola yëpp bu nu ko dajalee yaakaar nga ni opposition bi mën na ci génn. bon euh, en tout am mën na ci génn ci sensu man bon souvent nag da nga wax ñu ne yow bon est-ce que bokkoo si man ñëpp xam nañ fi ma fi sérieusement que bokkuma si nguur hmm. mais il faut que aussi opposition bi nit ñi dañ leen di ragal wax dëgg te si temps l'analyse yow nekkoo fi pour di wax nit ki lu ko neex u fee yi ngay jàpp mais dama ne qui peut le plus peut le moins yéen su ngeen demee ngeen ànd si département yi kon xam ngeen ne da ngeen a war a ànd mais alors léegi su fekkee noonu ànd ngeen nag léegi partout ngeen def seen benn bloc su boobaa moom aw ma ci benn dut mu neex ma Macky Sall mu neex waa Benno Bokk Yaakaar na leen leer ni kon coalition wàllu bu yeewi ànd Abdoulaye ñoo jàppale leen Khalifa Sall nekk fa Sonko nekk fa yeneen waa aar Sénégal dugg fa su boobaa na leen leer ni bu 31 juillet egg ci 18 moom mooy tax majorité assemblée nationale lu féetewul boor mais niñ ko bëgg a doxalee nii moom parce que si département yi ñuy wax mais député yi fa nekk yi fay génn bëriwul ay ñaar wala ñett maximum juróom wala ñett mm. mais tey boo demee ci liste national bi ak ni ko gars yi defee système mu élection bi nga xam ne nii raw gàddu la mais ma foi amul amul sax doute que nii ñu ko bëgg a defee nii séparé wu wàllu am aar am et puis am mm. mais fondamentalement li ñu bëgg a imposer Macky Sall en tout cas duñ ko mën a am mën nañ góorgóorlu nag ba am seen groupe parlementaire mais même ñaari groupe parlementaire mënuñu ko amandoo. Hmm. je répète que su yeewi demee ak aar Sénégal ak euh, wàllu suñ deful nànk kenn si ñoom rek mooy am groupe ñeneen ñi jàppale alors que suñu àndoon ñoom dañuy am benn groupe bu fort ba pare am majorité waaw loolu nag dafay inspiré nit ñi beneen affaire hmm. mais ni nga mën a teg ci gox goxaan yi te mënoo ko déggantee également si si si liste nationale bi daf ñuy rappeler rek daf ñuy rappeler rek bi Abdoulaye Wade waa wàllu bëggoon ànd ak waa taxaw mhm. mais ñu dem ba ci biir ñu ne non yéen Khalifa Sall moo leen ëpp grade moo ëpp doole donc du ñu dem seen ginnaaw fan la mujj mais taxawu Dakar amul groupe parlementaire. mënees na caa jàpp ne kon askan wi ñoru leen ku ne sa bopp ngay xaal c'est ça la vérité et puis ça il faut que aussi ñun ñu am courage ñu koy waxtaan. gis nga élection yi nii pouvoir comme opposition même pouvoir bi nii di nga fa dégg ay saña yu ngand ci diw lañ tabu ak tabu ñu diw hmm. j'ai comme l'impression gis nga fan yi soo xoolee bu baax tekk tekkaareel gi ak xëccoo gi ak maire bi yëpp hmm. mooy damaa bëgg am siège assemblée di dégg honorable député pendant cinq ans voilà ñu nekk si privilège yi di nekk sama donkaas yi mais en en vérité débat bi du loolu débat bi li ñu waroon xeex ñoom opposition ba pare imposer ko pouvoir mooy ñu xoolaat profilu député yi ñu xoolaat aussi débat politique bi ñuy def ci assemblée mais tey man ak yow soxna si am na ñoo ne ñu ngi assemblée xamuñu seen tur te lekk nañ suñu xaalis pendant cinq ans argent du contribuable ñoo sol ay ndoket yu rafet sol ay grand boubou yu rafet ak ay xaftaan yu rafet cinq ans yi jeex ñu demaat ñibbi seen amul dara loo xam ne apporté nañ ko peuple maintenant léegi nag aussi rumbuxloo boobu ñoom suñ ci ñëwee hmm. au lieu fi mu nekk nii liste yi dañ koy négocier non ñemewu ma dindi kii ñemewu ma teg kii. Hmm. te enjeu bi du loolu enjeu bi mooy kan moo war a nekk député ci biir opposition ak pouvoir ba soofa fa demee. Hmm. débat bi dina yéeg yéeg boo xam ne ni ñun askan wi ñoom ñoo ci amee njariñ te loolu gis nga si opposition bi comme ci pouvoir bi loolu hmm. ñoru xam nga la moo leen ñor. ay xëccoo ay poste ay naa ko yóbbu cohabitation mais en loolu moom mooy d'un point de vue global hmm. mais ñoom ñëpp problème égo la ak ku nekk di sa intérêt hmm. mais tey ji askan yi moom moo ciy souffrir parce que aussi bien l'opposition que pouvoir bi ku ne dina la beer ne nga dem voter te hmm. cause yi voté la gëw ma mu jël say say say préoccupation en charge bu doon nag askan wee leen tax a jóg dañoo war a defando benn bloc song coalition présidentielle bi jéem ko yóbbu cohabitation ñu jéem amaat beneen expérience ci sunu ci sunu configuration politique ak sunu écosystème politique ñu xool ba xam su dee président bi ak premier ministre bi ñoom ñaar bokk bokkuñu fu ñu jugee hmm. c'est vrai que dañuy wax blocage institutionnel mais est-ce que seen esprit républicain dina jox leneen Sénégal ñuy diisoo opposition di waxtaan ak pouvoir hmm. Sénégal mën cee jëm kanam mais lii nii ma gis nii moom 31 juillet Macky Sall dafay jaaraat seen kaw. amaat waaw non seulement mu gagné leen mais mun ci sukkandiku nag ba mun a laajaat encore beneen troisième mandat te su boobaa bu ñu fi nekk di sonal ni ñi naan kaay lañ ñu génn ci mbedd beeg yooyu parce que ils avaient gis nga bii nag mooy vrai premier tour élection présidentielle. Hmm. bu ñu ko bu ñu yóbboo Macky Sall ñoom ñoom bu ñu d'accordoon am benn camp xëcc majorité bi nekk premier ministre su boobaa nga dégg ni ci acte yi muy posé ak ni muy doxalee ni que Macky Sall mi ngi tàggu mais hmm. wax dëgg yàlla yéen ay journalistes ngeen su ngeen xoolee Macky Sall et j'ai envie de vous poser la question. Mm-hmm. est-ce que kii ngeen gis nii nuru na leen kuy mm-hmm. tàggatoo dans deux ans. <laughs> <laughs> Ah, je ne le pense pas je ne le pense pas. <laughs> alors ñu jeexal très rapidement waxtu bi moo nu xaw a xocc euh, Anna Thiaw mi ngi ñuy xaar. Mhm. laaj bu mujj bi dafay tënku ci la xew Dubaay ba tey ñuy wéy di ci dégg ay mbir yu doy waar yow loola en tant que psychosociologue noo ko jàngatee. waaw jaaxaluñu parce que loolu lañ fay gis bis bu nekk dafa amee ci beneen manière rek mhm. mais léegi société bi ñu bokk dafa nekk li ñuy wax société boo xam ne gis leen ma société boo xam ne nii wanewu la société boo xam ne puukarewu la. te loolu la def bis bu nekk sunu ngénte yi anniversaire yi grand théâtre yi Sorano yi mais loolu la ñu jaay xale yi xale yi màggaleeg moom di ko gis ci télé yi di ko gis ci film yi di ko dégg ñu naan diw moom mooy diw diw la yàlla baaxal loolu da ngeen koy dégg. Hmm. communicateurs yu bëri di la wax ne waaw diw mooy diw diw mooy diw. nga dégg si waaw xaalis ko laal nga dégg si koo xam ne nii bu njëkkaan dañuy wax ni jigéen boo téyee sa bopp ñëpp saraxoleel la defal la ngan di fet nga gis ay taxawaalukat de grand chemin mun nañ leen may ñetti oto may leen ñetti truc ñëpp wax ndeysaan di leen féliciter mm. waaw léegi modèle boobu ñu vendre société bi suñ demee ba société bi tamit parce que aussi affaire choix de vie ñun amuñu pour wax diw dafa war a def lii war a deful lii mm. mais am xam ne ñoom la fin justifie les moyens la gis damaa bëgg a si classe bi ñu yëg bi ñu naw bi ñu considéré nan nga ciy bokkee mooy xaalis yoon bii daf may jox xaalis après ma dugg ci il faut pas que aussi ñun société bi qu'on soit hypocrite benn affaire am ñun ñëpp ñu naan non lii de jaaxal nañ te loolu moom la ñuy bis bu nekk ci sunu tey jii ñi ñuy cité en exemple ci sunu koñ ñi ñuy ndeyale ñi ñuy bàyyale ñi ñuy tuddee làmb ñooñu ñëpp mooy borom alal hmm. mais comme dañoo nekk société alal na dafa am ñaar dafa am koo xam ne nii moom dafa am loo xam ne moom jàpp nañ jomb na ko am na loo xam ne moom pour moom vraiment jomb na pour def ko kooku que mu am xaalis que mu ñàkk bañ a am xaalis moom dafa jàpp ni ñuy wax esthétique éthique moo li ñuy wax taaru nit moom mooy fulaam mooy ngorom mooy faydam hmm. am na ñenn ñoo xam ne nag dañoo décider ñoom ne la ngor amul woomul ngor woomul mooy jëmalewu fen hmm. li gën a woom mooy nga dugg ci circuit bi jël raccourci am ci 4x4 dugg ci R plus 8 yi hmm. ñu ñu ñu ñu la jox la cër jox la gëdd mais léegi nag c'est un choix choix boobu bu ñu bàyyi moom mu egsi fii ñun ñëpp ñu naan waaw li ñaaw na te moom la ñu gis bis bu nekk comme li nga wax sànq hmm. moom lañ ñu jaay waaw léegi nag dafa am ñu ko mën a jënd majorité bi la exception bi ñoom bon dañoo dañoo fas yéene ngor nañ bàyyi ku nekk aussi mu am ku la mm. neex voilà nag buñ demee ci suñu borom mu àtteñ jërëjëf docteur Abdoukhadre Sanoko waxtaan wi mënoon nañ ko gën a yaatal waaye waxtu bi moo dab du ñàkk beneen yoon incha ñu mën a waxaat yeneen ponk jërëjëf waxaat yeneen ponk jërëjëf